waaw waaw maa ngi sant alhamdulilah waaw sant bu baax alhamdulilah alhamdulilah waaw góor lañu indi vraiment préparé ko vraiment mu dañ ay coono yu métti ah, di ko ñaanal suñu borom defal ko ndam mais xamuñu la moo njaax la moo doo bëre <laughs> toujours nag promoteur yi boobu ba démb sax ñoom mooy woowu mais nag ci man la léeg-léeg ma adversaire yoo xam te ne vraiment dañ dem biir mais affaire du sotti quoi bëreel bëreel waaw mooy yoon nag parce que joxoon nañu booy gis nañ taxawaay bi ak yéen ak teggin gi yàlla nañ yàlla taxaw bu baax a baax. fii gars yi di reetaan léegi na too bàyyi gën a dafa raw man mooy yooyu damaa gën a os wey aw ma soxna aw ma genn jëwriñ man du ma doxan barki Cheikhul Khadim du ma jox pour wax jigéen dama la bëgg dafa rëy ci man barki alxuraan xaw ma jigéen nu mel xaw ma lan nu mel damay jaayante ba léegi ko sonn nga faat ko quoi mais soo ma may ma jël de de waaw mais xam nga comme borom jumaa ji li ma tuddee tamit dama war a jubal di sellal xanaa ma ñaan soxna su baax rek bañ a def bëgguma def yéen nii quoi yàlla sëriñ bi taxaw bu baax barkeel liggéey bi rek